baabul nafaqati lii mooy buntu ak dund buñ ne an nafaqatu day yóbbaale lekk ga ak koddaay la ak dëkkuwaay ba yooyu yëpp ca baax dafa wax ne jamono yi jaam amee ku am jaam moo xam yow mi moom jaam bi góor nga mbaa jigéen nga gor nga mbaa jaam nga gone nga mbaa mag nga jaam ba yaa ko war a dundal di ko jox lekk ak lay neexal lekk ga bu diggu doomu rekk nag baax na lu waral ci yow nga jox ko lekk ga féete kaw soo coobaree di ko jox lekk gën a baax nag def nga lu baax yàlla lay fay faaw nga di ko wutal tam koddaay bu dee jamonoy sedd nga wutal ko yére yu mën a faj sedd ba bu dee jamonoy tàngaay nga wutal ko yére yu dëppoog tàngaay ba tey it ku am ci xeetu jur yi ak bahima yi moo xam day gëléem mbaa nag mbaa gàtt mbaa fas mbaa bax la li ñuy wax berkelle wala mbaam wala sax muus moom téye ci kër ga wala xaj boo xam ne ko wut ngir jariñoo ni ki mu koy sàmmal mbaa mu koy rëbbali yooyu yëpp moo leen war a dundal mu ne nag la mu war ñax lay dundee te ñax mi bari na ci àll bi naanukaay yi bari na ci àll bi kon ku yóbboo ci ñax ma muy lekk rek su bëggee naan dem naan rek baax na waaye bu dee jamono yoo xam ne àll bi amul lu ñu lekk faaw muy taxaw temm ci wutal leen lu ñu lekk yi nga xam ne ñoom la yàlla sàkk ñu am réew rek lu ci doomi aadama wut téye ko moo xam ay xeeti ganaar yeeg kanaara yeeg xët yeeg yépp daal lu mu ci yor téye ko bàyyiwu ko mu dem fori moo ko war a wutal la muy lekk ak la muy naan su fekkee ne nag day lu ñuy bàyyi muy dem di forali boppam te it fa muy fore moom dana fa mën a lekke ba regg naan fa ba màndi kon loola doy na waaye bu leen yeewee mbaa nga xam ne bu ñu fore itam duñ gis luñ lekk faaw mu war a taxaw temm ci wutal leen la ñuy lekk ak la ñuy naan lépp lu amul réew rek bu ko téye yore ko moo xam ay ganaar la wala ay kanaara ba ci xëti yeeg yépp rek bu leen téyee mënuñoo dem fori moo leen di wutal la ñuy lekk ak la ñuy naan maanaam jamonoy jaam amee ku yore jaam wala jamono yi ba léegi ku yore ci xeeti bahima yi mel ni gëléem mbaa nag mbaa gàtt mbaa xar yooyu ñu tuddoon léegi te nangu leen a dundal dundal ba nga xam ne moo ca war di leen sàggane rek ko àttekat bi woo wax ko ne ko lii la yàlla dénk toppatoo ko na nga ko war a toppatoo su ko ko waxee wax taxul mu dégg ko nag àttekat da koy forcé nangoo ko ci moom daal di koy jaay bu ko jaayee nag fam njëgg jox ko ne ko njëggaa ngi nii su ko àttekat bi téye nag bëgg koo jaay mu yéex a jar mu jot caa def alalam bu ko jaayee kon day génne lam ca defoon ci njëgg bu desee mu jox ko des ba bu desul nag mu xam ne desut li gën ci ku yore boroomu ruu nag te mënu koo toppatoo mooy mu fexe rek bu mu génn ay loxoom ci coobareem bañ a xaar ba yoon di ko ci forcé mbaa muy taxaw ëllëg ci bis penc ñuy fayantoo ci moom ndax addis ba dane mbindéef yi buñ taxawee ci kanam seen boroom dañuy fayuxante ba ka amoon béjjén sax daan daan ka amul béjjén dañuy saxalal béjjén ka amutoon béjjén ndax mu mën a fayu yuqtasu lil xalqi baadihim min baad xata lil jammaai min al qarna wa xata lil darrati min al darra ak bam ne la yaxtasimanna kullu cheyin yowma alqiyamati xata shaataani fi man tataxataa mu ne bu bis pencee li yàlla sàkk muy doomi aadama yi muy yeneen yi ci des nga xam ne ay doomi aadama luñ jote woon ci àdduna rek daañu leen taxawal àtte leen ka war a fayu fayu ba sax ñaari gàtt yoo xam ne dañu doon daanante bañ nekkee ca àdduna daañu leen taxawal seet ba xam lu taxoon ñuy daanante àtte leen ba ka am dëgg ñu jox ko dëgg fayul ko ci ka ko tooñoon waaw loolu nag bu amee ci diggante ñi amatoon xel rawante na ñu yàlla ñu yàlla sàkkaloon xel ñuy xam la ñuy def ak la ñuy bàyyi te mooy doomi aadama yi ak jinne yi koo xam ne itam daa yor loo xam ne yàllaa ko ko tàggatal mu mën caa liggéey mën caa war mel ne fas wala mbaam wala nag daañu ko di bayloo ak di ko takk sareet yu mel noonu du yem rekk ci war leen a dundal waaye da cay boole ci yoon du ca teg kenn lu mu mënut bu dee liggéey na leen teg lañu mën bu dee sëf na leen sëf rekk lañu mën waaye du sañ a teg kenn ci yooyu loo xam ne nii attanu ko da koy gaañ mbaa day metti ci moom ba ëpp bu ko defee rek bu ëllëgee dana ko layoo ci bis penc bu fekkoon ne jamono yi jaam amee la góor ab jaam di ko mettiital mbaa mu di ko teg lum attanut dañ koy aaye ci kanam yoon ay yoon yoon su bañee rek ñu nangu ko jaay ko ni nga waxoon léegi ba tey it ku yoroon gëléem mbaa nag mbaa leneen tey gis ne ma ngi koy teg yu mënut ca liggéey ba dañ koy woo ci kanam yoon aaye ko ko su ko bàyyee baax na su ko tëyee bàyyi nag ba tey yoon nangu ko rek jaay ko def njëgg lañ la waxoon léegi mooy mooy bu fekkee àttekat ba nga ko jëlee sa boroom bëgg koo jaay dafa yàgg ci loxoom jot na caa def alal bu jaayee da cay génne lam ci defoon ci alal door ko jox desoo bu desut kenn du ko jox dara te lu teew nag mu gàddu ci bàkkaar dafa tàmbalee ci ku am doom ju góor yaa ko war a dundal ba ba muy nekk magum jëmm kàllafe te it amul genn laago amul benn gàllankoor bu koy tey mën a wéet boppam nde bu doonee jaam moom sang ba moo war a dundal jaam ba te it mu ànd ak xel fekkoon dafa dof lu yàgg-yàgg moom baayam moo ko war di yor ba ba mu wér ca ndox ga te mën a wéeg boppam te it mu bañ a am genn lompañ niki ak laago wala génn tële gu koy tee mën a fàggu ku am doom ju góor joo xam ne kan la fi ne waaye dafa tële loolu yaa ko war a yore rek ba moom mënal boppam mbaa yàlla jële ko woon ku am doom bu jigéen moo ko war a dundal ba bam koy may jëkkër ba jébbal ko jëkkër ja su ko mayee jëkkër nag te jëkkër ja nekk kàllaf ku jigéen ki it àgg ci ñu mën a joteeg moom bu kàllafe wut it moom jëmm ji mënees naa joteeg moom kon bi ko mayee jëkkër ba jébbal ko ko rek dund ba wàcc na baayam daldi war nag jëkkëram joojee ku maye woon doom bu jigéen nag mu dem kër waaye booba gone la borom kër ba faatu mbaa mu fase ko mu dellu si dafa tey di gone maanaam daal ñàkk kàlla fi lañ jublu ci ngone gi kon baay ba moo daal di warluwaat dund ba nde bu fekkoon ne dafa maye woon doomu muse yi te ba muy dellu si fekk na mu kàllafe te amul benn laago kon dund ba wàcc na baayam bu ko soobee nag mu waraat ko rek di ko toppatoo ba mayaat ko jeneen jëkkër waaye ndegam dem na ba dikk moo xam dañ koo fase moo xam jëkkëram a faatu waaye du ñu ñëw moom kàllafe na te it mën naa liggéeyal boppam kon bàyyi ba moom dund ba wàcc na ko su xale bu jigéen bi nekkee ku lafañ mbaa ku am geneen laago mbaa mu dof nag moom bàyyam may ko jëkkër ba mu dem ci jëkkër ja kon jëkkër jaa ko war a dundal waaye nag bu jëkkër ja tàggoog moom mbaa mu faatu ñëwaat ci moom it faaw rek moom bàyyi bi moo war a yore ab dundam yor léppam ba ba mu koy mayaat jëkkër mbaa mu génn àdduna ba tey ku am yaari waajur yoo xam ne ñoom dañoo ñàkk te yow nga am yow kon yaa leen war a dundal waaye nag bu fekkee du benn doom ay doomi doom lañu moo xam dañoo jaxasoo di ay góor ki jigéen wala ñu ay góori kese wala ñu jigéeni kese ñoom ñëpp bu fekkee ne mën nañu ñoo war a dundal seeni waajur ci kaw nag kenn ku ne na am amam toll duñu wax dañuy seddoo dund ba yemle ca la ñuy joxe dañuy seet kenn ku ne rek fa saman man toll nga joxe lu toll noona ku bokk ca doom yi waaye yow mënoo nag génn nga waaye ku mën rek moom bokk nga ci ñu war a joxe bu ñu seetee ba doom war a dundal baayam te baayam yor lu ëpp benn soxna itam dañu wax doom ja ne ko yaa warlu sa dundub baay ak dundub benn soxnaam rek te bu dee sa yaaya nga ca kon sa yaay lay doon léegi nag baayam boobee moo war a seet ba xam nu mu yore soxna yi ca des bu bëggee lu baax nag yemal yépp mën na ko yor baayam yoraale mboolem soxnaam yépp yépp loolaa gën waaye daal su ca man man ba àggut mbaa xol ba àggu ca soxnaam ya bàyyam yor kenn rek lañ ko ci wax ne ko yaa ko war a dundal ni nga war a dundali sa bàyyi te bu fekkee sa yaay ca la bokk kon sa yaay lay doon ci des na nga bàyyi sa bàyyi yore leen seet nu mu leen dundale bu dee soxna si bàyyam soosee day koo xam ne jamono yi jaam di am war naa am jaam bu koy liggéeyal bu dee jamono yi nga xam ne jaam xewut muy koo xam ne war naa am mbindaan mu koy liggéeyal tam bañ a liggéey kon doom ji na mu war a joxee baayam dund noonu la war a wutale soxna si baayam soosee mbindaan moo xam ne moo koy liggéeyal ci kaw nag soxna si baayam soosee yelloo mu wutal ko ku koy liggéeyal bu doon ba jaam xewee itam bu soxna sa yelloo ñu wutal ko ab jaam kon ba tey doom ji na war a dundale baayam noonu la war a wutale soxna su baayam ab jaam nga di ko liggéeyal joxe bi nag dañ ca seet lislaam bu fekkoon ne yaari waajuram dañoo nekk di ay yéefar moom mu nekk jullit it moom mu am te ñoom ñàkk te mooy lu war a yoreel seen dund ba tey bu bàyyi bi nekkoon jullit ay doomam nekk ay yéefarit du tey rek moo leen war a dundal jëkkër joo xam ne kàllafe na soxnaam sam yorit mënees naa joteeg moom doonte ay atam agul ci kàllafe te it soxna si aayewul boppam jëkkër ja su aayee boppam jëkkëram rek jëkkëram waratu koo jox dund danañ ko wax léegi ca kanam kon jëkkër ji ndegam kàllaf la soxnaa mënees naa joteeg moom jébbal lañ ko ko moo ko war a jox dund waaye nag bu jëkkër ji demoon ba toll ci sukuraat ñu door naa ko kaa ñu jébbal la sa soxna si yooyu jamono dund du ko ca war ndax ndegam toll na ci sukuraat bu xamee dara itam mënta am benn bànneex ci soxnaam kon nag dund wàcc na ko ci yooyu jamono loolu mooy mësta joteeg moom benn yoon ñu xaar ba mu toll ci sukuraat ñu door naa ko nañ la wool sa soxna si mu ñëw de bu fekkoon ne dara dem ko moom jëkkër ji mu wéet ak soxnaam kooku moom bu demee ba toll ci sukuraat tam du tax njël wàcc ko du tee ba tey yu sukuraat sa yàgg-yàgg mel ne mu am ay weeri weer te faatuuti tutee dund ba moo ko warlul soxna sa soxna si itam bu fekkoon ni moo dem ba toll ci sukkuraat waaye fekk na moom jëkkër ji mu wéet ak moom ba tey rek doo ko ameel jël ameel ko lépp lu ca war ba ba muy génn àdduna léegi wax kay mooy jëkkër ji ci boppam daa toll ci sukkuraat ñu door naa ko kaay ñu jébbal la sa soxna si nga xam ne mësta jotee moom dara dara mës ñu suñu bàyyi woon it ba soxna sa toll ci di sukkuraat ñu door a wax jëkkër ji naa ko ñëwal ñu jébbal la ko dañuy seet bu fekkee jëkkër ji gàntu na nanguwul jébbal nga kenn du ko wax ne ko joxeel dund mbaa dara waaye nag bu fekkee nangu naa dem itam kat dund ba daldi koy war ak lu sukkuraat sa yàgg-yàgg mel ne soxna si amaati weeri weer te faatuwut it bu nangoo dem joteeg moom rek daldi war lu dund ba dañu wax ne njël li nga xam ne moom la jëkkër ji ameel soxnaam yaatu gam yaatu ca moom mën ca am bànneex ba mu taamu moo tax ndax daañu leeral léegi ne bu soxna si aaye jëkkëram boppam rek njël dal ne wàcc jëkkër ja muy xam ne fii nag ne su fekkee kat yoon moo aaye jëkkër ji ba mënta am bànneex ci soxnaam kon du tee nag mu war di ko jox dund mel ne soxna sa daa armal aj dangam aramal naaj jëkkëram du mën a joteeg moom waaye loola lislaam a ko waral wala jigéen ji dem ba tawat tawat joo xam ne moom jëkkër ji mënta joteeg moom yooyu yëpp du tee jëkkër ji war di ko jox dund ndax jigéen ji bañut dogalub yàlla bu fekkoon na it soxna si dafa tublu jëkkëram jëkkëram da ko ameel alal mu kalaame ko ci yoon yoon daal tëj jëkkër ja du tey fukk du tey jëkkër ja moo gàddu ab dundam bu fekkoon ne jëkkër ji ci boppam moo tëj lu soxnaam soxnaam da ko ameel bor mu yóbbu ko ci yoon kalaame ko yoon jàpp soxna sa tëj ba tey jëkkër ji rek mooy gàddu dund ba moom daal ku ci mën a yóbbu sa moroom yoon ba mu tëj ko it du tee la islaam rëddoon dara sotti wu ca mooy jëkkër ji moo amee dund ba soxnaam sa soxna mënees naa seet bis bu ne nga jox ko njël mënees naa seet nga jox ko par ay bis mbaa par weer mbaa par ñetti weer mu ngeen juboo rek ci njël li nga koy jox toll na baax na su ngeen juboo nag ci mu ànd yow rek day lekk wutaale ko la muy lekk te nga dañ ko ràññeel ne ko nangam laa lay jox muy dund ba tey loolu baax na mel na ngeen bokk nekk ca àll ba ci réew yi tubaab yi ngeen tay yi di togg ci kër ga nga warlu rek waxtu lekk jotee nga ànd ak moom ba fa ñuy lekkee nga wut ngeen lekk yéen ñaar loola doy na sëkk su fekkee nag jëkkër ja mën na koy jox dund bu wér wér bu ko neexee mu nekk kon dañuy seet li nga ma war a jox nga li ma ko jox du ma nangoo ànd yow di dem ci fa ñuy jaaye lekk waaye nag bu fekkee jëkkër ji mënul loolu man manam àggu ca bu soxna si mënee moom ci nii ñu ànd di bokk di lekk baax na su ko mënul nag bu ko neexee dem ci àttekat ba bu bëggee ñu fase ko waaye ndegam jëkkër ji mënul moom kenn du ko teg lu mu mënut saa yoo xam ne soxna si aay na jëkkëram boppam moo xam dane ko dooma laal ci kenn wet mbaa mu ne ko nangu naa nga laal ma waaye jote dëgg dëgg moom ci sawukaayu sawukaay moom duma ko nangu yooyu yëpp aaye boppam la jëkkër jo njël wàcc na ko koddaay ak waruga yëpp wàcc na ko ba kere soxna say nangu bu fekkee soxnaam tey génn te bu ko nee toogal mu bañ te mënu ca dara mënu ko yóbbu ca àttekat ba mu awale ko yoon mënu ca dara kon njël wàcc na ko maanaam ameelatu ko dund ndegam day génn dem rek bu ko aayee mu bañ waaye nag su ko mënee yóbbu ci yoon àttekat bi force jigéen ji ci topp ndigalam du génnati ci lu may ndigal kon dund ga du wàcc jëkkër ja maanaam buñ nekkat soxnaam bu ko dee aaye boppam mbaa mu génn te du ko ca may ndigal njël wàcc na ko day fekk soxna si tolluwul ci ëmb bu soxna si tolloo ci ëmb moom ak lu man di am faaw mu weer di ko dundal tax ëmb gam ëmb tax su fekkee jëkkër ji am na jamono yoo xam ne dawul jox soxnaam dund waaye booba it ñàkk rek taxoon bañ akuk dëng tafatoon bu fekkee soxna si waxu ci dara ba loola jàll bu bëggee taxaw jëkkër ne ko danga may fay dund ba mu waroon a jox daw mu ko jox ndax léegi am nga mën nga maa fay du tax jëkkër ja war koo fay dara ca loola lu may nag àttekat bi dañu ñëwoon ci moom ba mu dagalal jëkkër ji ne ko sa soxna si war nga koy jox dund lu tollu nàngam moo xam dane ko bis bu ne mbaa ay bis gu ne mbaa weer wu ne waaye moom daal bu yoon àttekat bi moo ko dogal ne ko nàngam nga ko war di jox dund gannaaw ba bu jëkkër ja ñàkkee ba joxewul loolee su ma bëti koo am nag bu neexee soxna sa mu ne ko danga may fay la ma waroon a jox ci weer yoo jàll wala at yoo jàll ndax léegi am nga te atkat bi waxoon na ne war nga may jox nàngam su fekkoon ne nag jëkkër ji moom amoon na lu mu joxe njël da ko dawul def rek kooku moom lu mu yàgg-yàgg bu soxna si taxawee ci kanam atkat ne ko na ma fay lu weesu ñu daal di forcé jëkkër ji ci mu fay ko la weesu ndax xam na ne njël gi moom la waroon te mënoon na ko moom moo ko daawul def rek ku fase soxnaam fase moo xam ne bu ko neexee fayli ko kooka moo ko soxnaam dëgg-dëgg suñ fasewul ñoo yemoo moo ko war a jox dund war koo jox koddaay war koo jox fa muy dëkk ba kere idda ji jeex ndax saa yu ko neexee rek ne jëlaat naa saa soxna te yoon du ko ca teg dara su fasee soxnaam pase mu mën a fay li moom àtteb soxna rek lay amee lu may nag mënta waaxu jekki-jekki wéet ak moom mbaa mu jotee ak moom te du daa wax ne fay li naa ko waaye bu dul loolu rek moom soxnaam la ba tey nga xam ne bu fekkee waroon na ñett ak moom moomu day jàppale ba léegi ñeent la war sañu te jàll takkaat keneen bu jàllee takk keneen rek mu di juróomeel bu iddaje jeexee nag kon léegi nekkatul soxnaam waratu koo dundalati te bu ko neexee dem takk keneen su fasee soxnaam fekk soxna si ëmb moom ëmb bàyyi tax faaw mu war di ko jox dund te du ko sañ a bañ doonte sax pase ma day ñett nga xam ne faaw jëkkër dafay jaaraat mbaa nga xam ne soxna si daa summikoon teeg moom fay ko alal bu may ko baat mbaa mu ne ko fase naa la fase moo xam ne yàgg-yàgg duma la fayli ba woon ne ko doo ko fayli yooyu yëpp ñoo ci yemoo dagam soxna si ëmb na rek fase gi du teye jëkkër ji war di ko jox dund doolal maskani jéem wax mat naa xoolaat ndax doole moom ci lu dul nangam lañ koy ëpp firee ma ne doole kon daa wax naam foofu maxal maskani ndax soxna si nga xam ne da koo fase te fekk mu ëmb nam ko warulale la muy lekk ak la muy sol noonu la ko warlule fa muy dëkk itam gàttoo sax mën nga ne jigéen joo xam ne daa toll ci mënta wuti jëkkër ka ko teg loole ko tee mën a wuti jëkkër rek moo gàddu ab dëkkuwaayam mel ne jigéen bu ñu ko fasee ka ko fase moo ko tee mën a wuti jëkkër kon idda ja moo ko ci war a wutal dëkkuwaay bu ñu tasee sëy ba ngir ne yoon ne sëy bi baaxut waaye fekk na ñu yër ba noppi nga xam ni soxna sa faaw dana iddawu kon jëkkër ji moo ko war a wutal dëkkuwaay ci biir idda ja bu jëkkër ji rëbboonteeg soxnaam mooy waatoonte bi nga jàngoon ci gannaaw walla sax góor joteeg jigéen joo xam ne da koy jaawaleeg soxnaam ba tax mu joteeg moom wala mu siif jigéen ja njaaloog moom nga jigéen ja loola neexu ko woon yooyu yépp góor ga bu dee idda góor gaa war di ko jox dëkkuwaay ba idda ji jeex bu dee ku ñu laablu it ba tey li fekk laablu ngay jeex ku xasuwaatoon teeg soxnaam ba noppi bu soxna si am nit du tax ñu wax ko ne ko yaa ko war a dundal ndax moom waat na ne ëmb bii juruma ko bayoon ne ko demal mu dem kon nag du war a dundal soxna sa ëmb ba du tax ñu ne ko yaa koy dundal ndax moom waat na ba miim ëmb ba ku xus faatu rek njël wàcc na ko ka gàddu woon njël la ni kii borom kër gi yore woon ay soxnaam ak ki doomam bu xësee faatu rek waruñoo laal dara ca alal ja di ko jëmale ci dundub kër ga dañoo war a taxawal lépp daal seet na gannaawam fay bor yi bu amee lu ñu séddale ñu séddale ko waaye duñ sañ a laal dara ca alal ja suñu xamul loolu nag ba am luñ fab ca alal ja di ko dunde ci kër ga kon buñ ñëwee bay seet gannaawam di miraas nañu fayaat loola ñu boole ko ca miraas ma mu ñu leen ko jéggalut mu des nag dëkkuwaayu soxna yi soxna su ne néew ba nga dëkkoon bu fekkee sa jëkkër moo ko moomoon wala fayoon na luyaas ba ba àggal kon foofu ngay toog idda woofu ba sa idda jeex kenn du la sañ a génne bu yàkkamti woon bay miraas it dañuy wax ne jigéen ñi kat ku jënd seeni néeg it bala nga koo mën a fab seen idda jeex ñu bañ a fàtte foofu ne duñu wax ne rek jigéen bu dee sëy ci ab néeg ba jëkkëram faatu moo daal di moom néeg ba déedéet diirub idda ja rek la koy moom lay tax daal mu moom néeg ba mooy ba ko jëkkër jee takk dañoo waxoon ba juboo ci wutal ko kër baa mu wutal ko néeg nga xam ne loolu moom buñ tàggoo woon it moo ko moom kon nag bu jëkkër ji faatoo ba tey kon moo ko moom waaye lépp loo xam ne bu ko jëkkër ji fase woon ñu tàggoo day dem bàyyi ko fa rek bu jëkkër ji faatoo du tax mu moom ko jigéen bu nekkee ci buumug sëy bu amee doom ci sëy boobee moo ko war a nàmpal te warus ko caa fay dara moo xam doom ji góor la moo xam jigéen la buñ ko fasee fase moo xam ne sañas na ko caa fay lu itam moo kuy fasewu tayam ba tey diir idda ji jeex moo war a nàmpal doom ja ume ci sëy ba lu may nag daa bokk ci yoroom daraja yi nga xam ne daawuñu nàmpal dañ daan nàmpallu ni ki waa Xurays daawuñu nàmpal dañ daan nàmpallu moo taxan sax ngën ji mindeef yóbbu woon ko di ko nàmpallu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku bokk ci famille bi mel noonu nag moom boo nekkee ci buumug sëy wala ñu fase la fasem pay lu itam sañ nga ne dama nàmpal ndax famille bi ma bokk nàmpal seen gàcce lañ ko def suñu fasee soxna si tase mu dog maanaam ñetti buum nga xam ne faaw jëkkër dafiy jaaraat kooku moom nàmpal ga wàcc na ko lu may nag xale ba ci boppam yaayam képp la nangu bu nàmpal ko nanguwul keneen nàmpal ko kon dañuy wax ka nga xam ne nàmpal waru ko ne ko del nàmpal sa doom te baayam di la fay te du ko sañ bañ su fekkoon nag baay ba amut lu mën a fay itam faw rek moom mi yaay ji moom mu nàmpal ndax ndegam doom ji moom rek la nangoo nàmp nangootu nàmp ci keneen kon su baay bi amee di ko fay mu nàmpal su baay bi amut it moom na nàmpal du mën a ñàkk su baay bi mënta fay sax waaye gone gi am na alal joo xam ne moo ko moomal boppam kon jigéen ji nàmpal te nàmpal waru ko woon mën nay fayu payug nàmpal ga ca alal yi doomam joojee lam koy jur jur su xale bi nangoo woon nàmp jeneen jigéen ju bokkut yaayam nag kon bàyyi bi ci boppam ndegam mën naa fay rek mooy fay jeneen jigéen mu di ko nàmpal dëkk fekk gone goo xam ne ab jaamur la mu di ko dundal gàddu ko ay mbirum gannaaw ba nag mu ne def mu ko woon ngir yàlla xale bi am na alal nañ ma ci fay mbaa bàyyam am na alal na ma fay kooku bu ci ñett sart yi dajee la wax ne nañ ma fay ñu daal di koy war a fay bi ci njëkk mooy fekk bàyyam am alal wala gone gi am alal alal ja yooyu jamono xale bi mënu ci woon a jot ne ki day suuf soo xam ne mënu si ko woon a jaay wala mu doon alal joo xam ne banque da caa tegoon loxoom ne bala koo joxe ñet ko kayit sàngam te nag jot ca kayit woowee jafe kon sartu njëkk bi mooy rek gone gi ci boppam amoon na alal wala baayam amoon na alal ñaareel bi nag mooy moom mu doon dundal gone gi fekk mu yëgoon alal joojee de bu fekk yëgu ko woon moom kenn du ko delloo dara ci li mu ko daan defal dañuy jàpp ne ngir yàlla rek a tax waaye nag dagam alal ji amoon na moom bu wér wér te it xamal na ko boo ca boolee sàrt ga di bëgg a dikk ñu war koo fay li mu wax ne def ko woon ngir yàlla ñetteel bi nag mooy mu waat ne ba mu koy dundal itam xam ne am na alal mbaa baayam am na alal te daañu ko fay rek taxoon mu doon ko def waat googu du ci mën a ñàkk su fekkee mënta waat rek kenn du ko delloo dara su fekkoon ne it ba muy dundal gone gi daa defoon ne boo ko amul dara ay mbokkam amuñu dara rek tax mu di ko dundal mbaa boog xam ne ay mbokkam am nañu waaye dane woon naa defal yàlla rek loolu yëpp kenn du ko joxaat dara kenn du ko delloo dara ci lam doon defal gone gi